nekk fonctionnaire international mais aussi vous êtes maman. oui oui oui <laughs> waaw kii kii Dior la def naa elle avait deux mois euh, moom ci boppam liir bi am na am na doom bu am quatre ans donc euh, àddina day. léegi maintenant vous êtes grand-mère <laughs> euh, voilà c'est la vie aussi. qu'est-ce que cela vous a fait nga gis sa premier doom. ah mais loolu kay c'est le bonheur suprême. ci côté jigéen ak ci côté góor voilà gis sa taqadeer moom voilà euh, def naa ne amul expérience bu ko gën a extraordinaire mm-hmm. après da ngay am le sens des responsabilités aussi ndax am na bakkan boo xam ne ci yow la dépendre xam nga loolu mm-hmm. bokkul ak nga yore sa bakkanu bopp rek voilà euh, kooku day yokk sa responsabilité euh, mais bànneex bu mag a mag a mag la aussi voilà donc ñu ngi saluer toutes les mères voilà di ñaanal aussi celles qui voudront être mères. Mhm. yàlla may leen njaboot. Eh, ñu def ci njaboot gu barkeel la ñëpp di ñaan aussi. Mhm. Eh, voilà. d'accord.